yóbbu bi njëkk yu njëkk yu jaadu ci New York City njëg yu jaadu ci New York City waa New York yi neew doole mën nañu jot cinquante pour cent yu ñu leen wàññil ci subway ak bis yi ngir dimbali ci njëg njëgu dem ak dikk bi su fekkee ni danga am fukki at ak juróom-ñett ba juróom-benn fukki at ak ñeent doo jot metrocard bu ñu wàññi wala benn programme New York City te nga am payoor gu suufee yii lim payoor weer gu gën bari ngir ab kër këru benn néeg bu toll ci mille cinq cent six dollars payooru weer weer gu gën bari ngir ab kër këru ñaari appartement mu ngi toll ci deux mille quarante quatre dollars payoor weer gu gën bari ngir ab këru ñetti néeg mu ngi tollu ci deux mille cinq cent quatre vingt deux dollars payoor weer gu gën bari ngir ab këru ñeenti néeg mu ngi toll ci trois mille cent vingt dollars payoor wër weer gu gën bari ngir ab kër bu toll bu ñe juróomi nekk mu ngi toll ci trois mille cent cinquante huit dollars payoor weer gu gën bari ngir ab këru juróom benn néeg mu ngi toll ci quatre mille cent quatre vingt seize payoor weer gu gën bari ngir ab këru juróom ñaari néeg mu ngi toll ci quatre mille sept cent trente payoor weer gu gën bari ngir ab këru juróom-ñetti néeg mu ngi toll ci cinq mille deux cent soixante douze dollars wooteel ci 311 wala nga seet euh, site bii di https deux point slash slash www point nyc point gov tiret euh, slash sit fairfares f a i r e s tiré index point page ngir ay xibaar yu delloo yu dolleeku ak wóoral matuwaayu mënug bokk yi dawal ci état New York ngir dawal ab daamaar wala moto ci biir état wu New York danga war am lu mu tuuti fukki at ak juróom-benn te am ab permis dawal dawalu état wu New York wala permu permis wu jàngat wala permis dawal bu baax walla permis bu beneen état wala réew joxe su fekkee ni danga am permis dawal dawalu bépp réew soxlawul ngay soxla permis dawalu état wu New York ngir dawal fi danga nga war a bindu. ngir permis dawal état wu New York su fekkee ni da ngaa nekk ku dëkk ci état New York su fekkee ni da ngaa soxla ay xibaar mën ngaa xool ci site internet bii di https deux point slash slash dmv ny point gov drivers license maanaam permi toppatoo wér yaram